xamante ni moo feeñ feeñal ci ay ngëneelam ak i teddangaam manqué teg manqué teg jikko yi ak manqué teg nit ñi yooyu yëpp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñëw feeñal ko moo ñëw remplacer ko ci jikkoom ju rafet li mu wax mooy dafa feeñ ci ay tara ci ay teddangaam ak mbaaxaam ba nëbb nuqsaanal uyubi manqué ayibu maanaam ayibu day am ci lépp lu lépp gis waaye yonent bi sallallahu alayhi wa moom aybu amul ci moom moom dafa mat bi mu ñëwee nag moo nëbb lëpp loo xamante ne waroon naa mat te matul yonent bi sallallahu alayhi wa jikkoom ju rafet moo ñëw nëbb loolu mudirri xamaimi xuyuusihi zawaaxir mooy ki nga xam ni xamaim jam la moy niir yi nga xamni dañuy taw day melni yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam moom mooy moom moom ki nga xamanteni moy talqih talqiix xamaa im ñuy taw xamaamatul mooy benn niir xamaa im mooy mooy ay niiw mooy ay niir xaysu mooy taw bu bàyyeekoo ci niiri di di di wàcc zawaaxir jamu mufrad bi mooy zaaxir mooy loo xamante ni dafa bëri mu mel ni nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu fekkee ni niir yooyu am na taw bu ñuy taw ci taw bu mbaax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax ñuy taw taw ci lan ala damai arwaxil awaili wal awaxir ci maruk ruuxu ñu njëkk ña ak ñu mujj ñi day mel ni buy taw day fekk ruuxu ñu njëkk ña ak ruuxu nit ñu mujj ñi mar lan la mar ak mbaax la mar yonent bi sallallahu alayhi wa nekk koo xamante ni mooy taw bi bàyyee ko ci niir yooyu di ko taw ci ruux yu ñu njëkk ñaak ñu mujj ñi ba tey ci ay melo ay meloom rek lay wax al mabuusi mooy ki ñi yabal di ki ñi tànn rahmatan muy yërmande lil xalaayiq ñeel mboolem bindeef yi al mawsuufi moom la ñuy melal moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi akramil axlaaqi gën ngaa tedd jikko alladi mooy ki nga xamante ni antaja am na wala amal na wujuduhu ak amam moom yonente bi salallahu alayhi wa sallam li mu jur mooy al amna kóolute wal amaana ak kóolute ñaar yëpp loolu la ñuy firi al am wal amaan bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam njëmee la yàlla jox nit ñi amaan ci seen alal ci der ci seen dund bu njëkk ba nit ñi dañ fee nekkoon rek ëpp sa doole ëpp ëpp sa morom doole duma kenn amul fuñ la yamal ak fuñ la yamalul yonent bi sallallahu alayhi wa ñëw rëdd sharia wutal nit ñi ak gétt goo xamante ni aw xisnu goo xamante ni mooy géttug lislaam ku ci dugg mucc nga waaye ku ci duggul muccoo moo tax mu ne yàlla digal ne ma ni bu nit ñi waxee laa ilaha illallah rek muccal nañu ci man seen diine ak seen ak seen deret lu dul ci xaqi lislaam mucc nañ seen muccal nañ seen deret lu dul ci xaqul islaam حق الاسلام نك موي لو خامتاني الاسلام دا لا خا ورا تك واضح كون موم مو نيو موتشل نيو سي لان من المسخ تي صوبي والخسف اك خسف خسف مو ني جيك جيك رك ا أه، جيل او نيون تي بو نك با امنا اي يونت يو خامتاني sen sen ñooñ bi leen yàlla di mbugal da leen a mbugalee xasfu moo tax mu ne fa xasaf bihi wa bi deerihi larda mooy day jékki rek yebal jibril rek mu yuuxu leen ñoom ñëpp ñu faatu wala mu tonni leen ñoom ñëpp ñu faatu wala mu ci leen ba ci kaw daal di leen wëlbati suuf si seen kaw ñoom ñëpp ñu faatu wala lu ñuy wax masx te mooy mu soppi nit ñi jële leen ci melog doomu aadama jëmale leen ci melog ah, noppatu jaboot tamay golo nga xamante ni ñenn ci bañu ñu Israil sunu boroom ah, defoon na leen ko biñ ko tooñee mu jële leen ci melog nit jëmale leen ci melog golo loolu nag xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mucc nañ ci loolu ndax mom sunu borom dani len fi ak yaangi ngi seen biir yow yonnati bi sallallahu alayhi wasallam man duma len bugal mukk wa ma kaana muadibuhum wa hum wa anta fihim wa ma kaana wa ma kaana allahu muadibuhum wa anta fihim wa ma kaana muadibuhum wa hum yastaghfirun ya kana ni non la duma len bugal fi ak yow yaangi ngi seen biir soo fi jugee yit duma len bugal fi ak ñi ngi jéggalu kon muccu nañu ci xas ci masxu muccu nañu ci xasfu wa anwa'il imtihaani ak mbollem doyadal yo xamanteni sunu borom da daan doyalal ay nit ngir ni dañ ka moy marsud wujuduhu mom moy ki nga xamanteni nég nañu ak amam fi kulli awan ci bop jamono lil anbiyaa yi ñeel yonant yi wal ulamaa yi ak borom xam-xam yi al ayaan ya ñu tànn yonent yi ak borom xam-xam yi ñoom ñëpp doon nañ nag ñëwug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam alladi mooy yonent bi nga xam ni ashraqa ceeñeeral na te mooy leer na albaytu néeg bi te mooy kaaba gi inda wadihi ca bañ ko juree moy bamu judde ci lan la ci ñeeral nuran ci leer wamtalaat al ard wamtalaat mufas al ard sufsi was wasamaau ak asaman si farahan ci kontante wa sururan ak mbekte bihi ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam man moy ki nga xamni mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam قلبه خلم حديقة حدائق المعارف موي تولو درو خم خمي معرفة سفيكوني أي تولا يننتي صلى الله عليه وسلم موي تولبا موي خلم موي تولبا رك خم خم لوم ген رك سي لامن خم خم لا وفير دوسو فراديس اللطائف موي فير دوسو firdawsu lataif ñeewante yi moom sallallahu alayhi wa sallam ci ñeewante yi mu ñeewante xeet bi day mel firdaws ci neex ga ak neex gaa nekk ci doomu aadama yonent sallallahu alayhi wa sallam loolu la mel ci xeet bi bu mu ñëwee wa qalamu taxsiisi wal madad moom mooy xalim ak mom moy it mëdët te moy ay may yo xamni sunu borom dina ko joxe al muwaddah bi ajler lil anbiya wal mursalin ma shadda fi khafa wa sharat li nga xamanteni tum tumranke na te sunu borom dika jox yonenti dika jox mursalin yi dinañ ko jox ci secret loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci moom la koy jaarale mooy mëdët bi muy jaar pour jox leen ko naasibi alaami alxususiyati al ahmadiya moom mi nga xamante ni moo takk alaami alxususiyati al ahmadiya drapeau jagleeg ahmadiya moo ko takk fan في مناصب مواكب التجليات الأحدية في منصب مواكب تجليات الأحدية سفكة نسنبرم دايدة في تجلي في نجني نجم تمام موينك أي دلقاشون يبري دايمل يونتي صلى الله عليه وسلم درابهم مما يدرابهم بنا خامنتني mooy mooy mooy mooy benn bi nga xamante ne amul ñaar moo tax mu utiliser foofu al ahadiya sayidina mooy sunu sang wa mawlaana di sunu kilifa wa nabiyina di sunu yonant muhammadin muhammad ibnu abdillahi doomi abdillah ibnu abdulmutalib di doomi abdulmutalib ibnu hashim di doomi hashim alladi mooy ka nga xam ne لم يزل مستدن نوره اي ليرم ينتقل دي دي تخو الى الارحام الطاهرات بايك كوتي روحمو نيو لابني تموي اي نعم اي مامم امو سي كين كو خامتاني مسنما يالا جيجين بايكو من اصلاب الماجدين الاكارم ko ci ndigg ñu baax ñu tedd ñi te mooy ay maamam yu góor